D'ailleurs Miss bi bi mu gañee euh, bi muy doog a gañe un mois de règne la ama hein, presque pratiquement dafa gagner rek Covid ñëw te biñ ko fi pour que mu def ben vidéo ak ministère de la jeunesse ci temps Covid bi pour sensibiliser Bobu, defe naa ni fi Binta moo ma ko xam parce que moom mooy gérer fii yi te côte à côte ak Binta ak comité d'organisation bi amul ben yon bo xamante ni moom bàyyi ko mu toute seule parce que man fi, yi bu ñu toujours euh, damay bëgg ñu leen di assister parce que man dama yoy responsabilité donc lool motax kon lool mu wax amul voilà alors benen bi mooy xana kon mom ñak na fayda <laughs> ndax bo xolé ba nga xamanteni ni yow dañ la violé défé na ni viol de koy séq du benn nit n'est-ce pas donc lool mom, du waaw da ko wara a porter plainte ko na na porter plainte ki ko violé parce que ñun hôtel bañ koy yobbu kenn du fa dugg toujours damay joxe ay consigne hôtel bu ñu mënti nekk même kii bu ñuy def mise au vert dama naan fii kenn du fi dugg bu fi góor dugg bu fi sax ay xarit ak bu fi kenn dugg donc loolu dañ koy surveiller di ko contrôler man euh, éducation bu sévère laa leen tegal ñoom xam lañ ko bintaa nii dégg donc loolu mu wax tegu ko fenn ku ñu violé yow la neex quand même magum jëm la de eh elle est majeure elle est majeure <laughs> voilà